yaa oustaz maa ngi lay nuyu papa di la ziar di la màggal bu baax a baax. ni ko maa ngi lay fay nuyoo di nuyu. sa gaa yu baax yooyu di nuyu sa technicien di nuyu mboolem ñi nga xam dem déglu ci biir réew mi ak ci bitim réew di ñaan nuyu bi fekk ñëpp ci jàmm. jërëjëf yaa oustaz euh, Alioune Sall ñu ngi lay ziar di la jéggalu nag euh, ndax euh, yitte yi nga xam ne dañ koy faral di dog waane xam naa li ma koy faral di waxee man maa sañ lii te lu mën da ñàkk faw mu am débat bi jamono ji ci Sénégal mooy port du voile ak li nga xam ne premier ministre Ousmane Sonko mujjee na ko jibal ak coow li ci tegu yëpp muy dem ragal euh, dérapage ci yenn yi euh, yow mi kilifa ci wàll wi itam te ñu ràññee la bu baax a baax boo amoon kàddu ñaar yoo yëkkati rek jëm ci débat public bi lan lay doon oustaz Alioune Sall. jërëjëf xanaa am mbégte ci li ngeen ma woo ci jataay bi te boole ma ci ndax bëgg moom tiyaaba di jaajëfal waa dëkk ba la nga xam dañ maa tuddee genn garab ci garab yi doon jëmba démb ak barki démb. yal allah yàlla na garab ga dund te meññ bu baax a baax. amiin euh, xam nga. am na ay wax yoo xam ne daanaka débat yi moom di ko ci def daanaka doo ko doon jar dafa am lu fi mas a xew ñu ne gone yi dañ doon jàng si ñu ne leen dindi leen seen muuraay mbaa du ngeen jàng ñu waxoon ca ay at ci ginnaaw loola xam na la ay ñu jëkkatiwaat nag bëgg koo dend la genn wax bëgg ne kii dafa contre kii wala wax ji da ko waxaat xëy na sax am na ñeneen ñu xëyaat te ñoo xam ne liñ ci indi loolu xëy na mooy gën a maanaa ci li ma doon wax ñun bu fekkee mooy école publique nga xam ne lépp état ko moom mu am école boo xam ne bii état moomut lépp waaye dana comp dara di ca def mu am école boo xam ne bii état du somp te def ti moomu ko bu état ne man école bi moom moom damaa bëgg bu ñu tollatee ci di jàng bu ñu tere kenn muuraayam bu ñu obligé kenn ne muurul waaye nag bu ñu kenn muuraayam loolu débat boobu ci lañ toll fi mu nekk nii. def naa moom euh, campé na débat bi donc euh, puisque mooy doon euh, sujet bi ñoo waxtaane muy sujet voile bi nga xam ne semaine bi passé gannaaw bi Ousmane ko defee sortem boobee waxtaanee woon nañ ko waaye li ci topp mooy fi mu glissé e la question que beaucoup se posent et que je me pose aussi c'est comment on a fait pour glisser jóge ci benn sujet bien déterminé glisser ba ci domaine bi nga xam ne peut par rapport ak sujet bi en tant que tel même bu fekkee laale nañ ce n'est l'aspect religieux dans dans cette histoire. waaw moom a plusieurs choses yoo xam euh, a xool lu jiitu la gisee école yi ak gouvernement bi lan mooy seen yéene ci école privée yi ba pare. lii door a toftalu ca. fan yi ñu génn moom ci boppam yónni ministre bi ñu dénk wàllu njàng mi mu dem ci jàng daara ji. jàngu bi ci église bi waxtaan ak kilifa yi nga xamee ne ñoo ŋànk église bi. Mhm. sargal leen sant leen gërëm leen. Mhm. xam apport bi nga xamee ne euh, le privé catholique daf koy def ci njàng mi ak tamit ñi ciy génne di ay cadre yépp bu loolu premier ministre bi ak gouvernement am dañ ko rafetlu ba noppi. Mhm. kon léegi loolu moom kon féete na boor. léegi nag li mu wax ne dootuñu nangooti. Euh, maanaam ay nga dugg ci école bi rek di voilé wu ñu ne doo fi muuroo loolu dafa am lu ca yeneen kàddu yi ci premier ministre bi teg. Mhm. dafa jël France joxe ci exemple la ñooñu sañ nañ ko seen liberté la parce que ñoom lii la ñuy nangame foofu tamit. Mhm. seen ay autorité loolu la ñu bëgg ñu itam ñu sañoon mu demee nii. loolu mën naa ubbi buntu waxtaan ndax bu ñu waxtaanee rek mën nañoo juboo mhm. parce que église bi tamit fermé wul ay buntam parce que la fi xewoon. ca jamono yële kii bu Liban ba nekk fii ñoom ci seen bopp mujjoon nañ wàññi wàññi affaire yi daal di d'accord ba kooku sax lam doon folo kas wàññiwaatoon na kii bi mais mu ngi doon muur Notre Dame du Liban wala Jeanne d'Arc bu nekk ci wetu palais bi dafa mooy Jeanne d'Arc voilà hmm. boobu fexe woon nañ ba nga xamee ne am na waxtaan wu doxoon ci seen diggante ba am lu ñu hmm. wax ni ci wàllu diine yi yi demee naan yàgg naa dunde nii yeneen réew yàgg nañoo dunde nii te amuñu benn problème hmm. te yaakaar naa ne tamit yéene Ousmane Sonko du fenqale ay diine loolu sax xalaatu ko téeméeri junni xelam nekkul ci loolu nit ñi kay ñoom ñooy grisé dugaat ci beneen pas-pas te affaire pas dafa nekk loo xam ne dañ ko a fekk ne moo tax laïcité bi ñuy wax ni alxilmaaniya bi ñuy wax nii am def maanaam ni ni ko firee réew yëpp a bokk ñëpp ñëw ñëpp a bokk taxarif bi léegi nag mi ngi ci majorité être majoritaire ne signifie pas que li nga bëgg moo fi am être minoritaire tuuti tamit firiwul na tamit man li ma bëggul mun fee mañ problème bi mooy am ab république moo ñu boole ab constitution moo ñu boole léegi nag pas-pas yi moom mën naa yem ca jàkka jàkk ci église yi ci kër gi a xabaabal ba dootu jur raison. ngëm-ngëm lay jur te ngëm-ngëm day nëbb xel. boo boo gëmee dara da ngay dem ba dootoo gis moom laa jox léegi exemple. ngëm-ngëm day nëbb xel. day nëbb xel parce que boo ci demee ba kii ci. dëggu ñoon fanatique. quelqu'un qui est mooy lim gis rek la gis. dootu ubbi bopp bi. parce que dañ defe dañoo. existe fanatisme religieux. fanatisme politique. politique voilà hmm. très bien nga xam ne yow da ngay dem ba yow lii rek da ngay defee ni moom nga nàmp ci sa bopp ba sa séro bi fees na fees goo xam ne gii. Hmm. idée mënatu cee duggati. Hmm. loolu passion la aqida pas-pas moo koy moo koy moo koy def ci nit. loolu nag débat bi àggagul foofu. débat bi dañu ils ont même sax boo liiree lettre waa kii kii kii jël Latir li mu wax sax boo ko xoolee ba xool ko. Abbé Abbé Latir ubbi tëjul tëjuñu a fexe ba yi war a mën a saafara yëpp saafarawu mhm. léegi nag gars yi ci bare bare dañ koy daal def nag occasion parce que yóbbu ko ci yeneen xeexu diineeg ay affaire majorité mhm. yàlla moom xamul majorité minorité mhm. majorité sax laa li ci bare bare alxuraan daf leen di xas majorité moom lu ci wala ak moom daal lu bare bare yàlla daf leen di joxoñ li am solo rek mooy nit ki li gëm individuellement di ko gëmmal ki gëmu boppam te bañ koo exposé ci constitution bi parce que nag règlement intérieur wax naa ko léegi Mbàkke lu mu réer réer ci école bi constitution ko ëpp doole. Hmm. constitution bi dañ naan la école ñëpp a yem. Hmm. doomu Nicolas ak sama doom bu ñëwee ñëpp dañoo war a mën a jàng hmm. kenn ku nekk la nga gëm nga def ko ci jàmm ak salaam ñun dinañ yemale débat bi foofu rek. <laughs> jërëjëf oustaz Maodo Faye. waaw kilifa bi nga xam ne dégg nañ ko en direct kontaan lool ci moom. kontaan lool ci di ko wax saa su nekk yàlla na yàgg a wax euh, moom mës a wax lu lëndëm euh, position moom yaakaar naa ne même buñ daggoon catu waxam indi ko mm-hmm. Mm-hmm. wax joo xam ne day wuuteeg euh, déggeenu penc mi ci ni mu gën a rafete mm-hmm. ku xam Oustaz Alioune Sall xam ne loola du ay waxam dañoo génnee wax ji ci contexte bi rek waaye nag jërëjëf ci oyof gi am ci ñëw leeral ak itam bëgg a ak nit ñi ci tolluwaayu jamono saa su nekk euh, Nicolas Cissé bii nii ci Cissé yi am solo ci réew mi la bokk waaye ci war a naqaree waxtaane la bokk gis nga loo xamante ne ni dañ ko war a lijjanti techniquement kenn wuru koo def mu nekk débat public waaye dañ ko war a lijjanti ca fañ ko war a lijjantee ci waxtaane ko euh, premier ministre Ousmane Sonko génn bi mu génn wax euh, yaakaaruma ne guléet la ci réew mi nit wax loolu mm-hmm. gis nga boo delloo ci ginnaaw Serigne Babacar Sy Mansour mii xalif général de Tidiane mm-hmm. euh, point bii di muuraayu xale yi waxoon na ci wax joo xam ne àggoon na sax ci wax ne assemblée nationale ci boppam ñoo war woote ay loi mm-hmm. école yi nanguwul ñu muure euh, maanaam école yi bañ loolu kon ñu tëj leen ci réew mi mm-hmm. euh, booba ñi ngi wax ci pharmacie boo xamante ne da doon bañ ku fa julli mm-hmm. ba muy wax ci xalaatam ci pharmacie boobu àggoon na ba àgg foofu kon damaa yaakaar ne loolu tey bu Ousmane Sonko ñëwee wax ko débat bi yamoon na rek ci diggante école yi bañ nañ ko fi muuru ak bañ ko fa muuru waaye li la ciy tiitloo mooy boo gisee débat bi daal di commencé tuxoo foofu jëm ci mbirum diine euh, bu ma amee ku may wax ne moo ko fa yóbbu mooy làbbe bi ci boppam ak respect bi ñu koy jox yëpp nag euh, boo dégloo waxam ji ba mu jeex euh, dafa waxut ci xam-xam maanaam bu doon dafa wax ci ay loi wax ne kat yow premier ministre muuraay yi ngay wax loi sàngam dañoo may suñu école nit nit bëgg fee jàng si ñu ne ko doo fi muuroo hmm. wala constitution bi daf ñoo may nangam wala daf ñoo may nangam waaye Nicolas koo xam ne kenn waru koo xas ci mpénc hmm. wërta jiite ab xaste ci mpénc hmm. te réew mi boo yëkkati ay kàddu jëmee ko ci kilifa diine ak njabootam mu metti leen boo ko yëkkatee jëmee ko ci kilifa église bi mu metti ak njabootam ma yaakaar ne kon kilifa église bi itam warta yëkkati ay kàddu yoo xam ne kàddu yi xaste la wala kàddu yoo xamante ne luñ tuumaaloon as gor la ba yoon a atte ci ba noppi nga di ko àdduwaat di ko bind ci saw këyit di ko teg ci pénc mi ndax loolu daf ñuy yóbbu foo xamante ne même njabootam gi ne ci biir gouvernement bi duñ ci nekk à te gouvernement bii Ousmane Sonko taxawal ak président Diomaye li ci nekk ci ay DC yoo xamante ne ni ay taalibeem lañ. Mm. ak ay ministres yoo xam ne ay taalibeem lañ maa ngi gis benn ministre ministre des fonctions publiques mm. euh, ki Olivier Boccar. Mm. di di di estati léegi photo sëñ Abdou Mbacké bu mu demoon seeti ki nga xamante ni mooy kilifa euh, église bi yëpp. maanaam loolu yëpp ñi ngi doon wane maanaam image su wane ne ñun ñëpp benn lañ. ñun ñëpp ñoo bokk luñ bokk ñoo bokk nu war a jàppante léegi nag lu jëm ci wàllu muuraay yeeg yi nga xam ne moo ci am man damaa jàpp ne man nañ koo waxtaanee. nañ ko teg kitaab table ji waxtaane ko ko réew mi réewum yoon la réewum loi la ak ay droit am constitution am ay règlement intérieur école bi ubbi balaa am autorisation wala ñu koy jox agrément di ko sañ a subventionné day am règlement intérieur bu mu def jox ko ministère de l' éducation nationale ñi xool ko su fekkente ne loolu daa nekkul ci biir règlement intérieur yi état moo yor ay sanction war a da maanaam war leen koo teg na leen ko teg su fekkente ne li ñuy def yoon la ñu xam ne loolu yoon la ñu xam mais ko bàyyi ci mbirum ci mm. ci pénc mi léegi ma taal yàq xeteme waa église bi ñoom itam keneen taalub laay fam yàq ñu ko dañu mujj toxoo ci cadre bi ñu nekkoon yóbbu ko ci cadre diine te loolu jiguñu hmm. du ñu nekk à l'aise ci loolu ñun jullit yi li ñu alxuraan jàngal mooy laa nu farriqu bayna ahadin min rusul hmm. amuñu problème ak yonent yàlla saa réew mi it ñu ngi fi doon dund ci aada ak luñ donn loo xam ne amuñu woon problème ak église bi hmm. nit mën a dend ku chrétien mën a bokk ak moom fu muy liggéeyee mën a bokk ak moom kër mën a bokk ak moom dëkk ñu dem bay sëyante yu baree bare am ci suñ biir loolu um, diggante cadre muuraay ak bañ a muuraay nañ xam ne ab école la bu nit ubbi mel ne kuy jaay bitigam am ku ñëw di jënd fii ndax marchandise mi da koo neex muy fay di ko jënd ñu ne ci cadre dinaa la jaay ak du ma la jaay. Hmm. nañ ko yemale ci cercle boobu réglé ko ci wàllu loi loolu hmm. mooy li nga xamante ne jàpp naa ne mooy xalaat. jërëjëf Serigne Mbacké Sylla oustaz. Euh, hmm. mais léegi port du voile boobu parce que loolooy débat bi. ci établissement scolaire yi parce que loolu la PM fustigé également. naka la ñu mën a def pour que également kenn ku ci ne gis ci sa bopp est-ce que euh, ñiy inscrire seen i doom dañuy xool léegi école yi ñu leen di ak yu ñu leen wala école yooyu dañoo war a soppi seen i règlement règlement intérieur méngale kook suñu réew lan la war a doon en fait waxtaan bi foofu la war a dem. waaw euh, xam nga port de vol ci réew mi dafa am ñoo xamante ne dañoo gis ne farata la. Mhm. ju yàlla farataal ci ñoom ñuy muuru. Mhm. di muur it seen doom yu jigéen ndax jàngal leen ko. Mhm. am na jullit yoo xam ne gëm nañ ne porte de val farata la waaye muuruwuñu mm-hmm. te ñu ngi dox ci penc mi dem di doxi seen i soxlaa ka ñëw mm-hmm. waaye gëm nañ ne farata la mais ñoom muuruwuñ defuñu soowaa boobu mm-hmm. léegi nag ci biir ki nga xamante damaa jàpp ne liy indi jàmm jooju ak indi ak dal mooy ki jàpp ne doomam jii da koo war muur mu jàngi mu muur ko bu ñëwee ñu def ci moom xam-xam te bàyyi ko maanaam jàngal ko programme ba ñu jàngale te bàyyi ko mu ñibbi hmm. ki jàpp ne doomam wërta muuru mu ñëw bañ a muuru ñi bàyyi ko mu bañ a muuru te ñu jàngal ko mu dem ñibbi hmm. gannaaw réew mi noonu la tënkoo ba suñu ñoo forcé nit hmm. ne ko ne koreetandoo leen muuru leen bu leen mureeku nañu nañ tëj jàkka yi nañ tëj église bi bàyyi kenn ku ne muy jaamoo yàlla ni mu ko bëggee nañ bàyyi la mu gëm ca boroomam mu ñëwee noonu ci jàngukaay bi jàngukaay bi jàngal ko programme mu jàngam bu ñoppee bàyyi ko mu dem jërëjëf Mbacke Maodo ñu dajee waaw question de choix la quoi parce que euh, ak ak tànneef la rek tànneef gi nag yow yaay xool yow sa doom fi nga bëgg mu jàng fa bu fekkente ne nga ko may loolu rek respecté règlement intérieur fekk gouvernement bi wax na ci xayrun mm-hmm. soo ko mënul nga génne ko yóbbu ko ci beneen école mm-hmm. am na solo